justice bi nga xam ne moo fi nekk sur place du bu baax bi parax paraxe yi ngeen di gis ni procureur de la république bi ngeen gis muy woo tey euh, Bah Diakhaté te Bah Diakhaté di ngeen gis ci ay fan yu néew dinañu jéem a pamte pamte dossier gaawante ko génne ko comme niñ ko defee woon Kalifon Sall bu leen fàtte ne Doro Gaye saa problème amaan même procureur bii la daan woo procureur bi Doro Gaye daf ko am li américain di ne en speed dial maanaam yor téléphone allo monsieur le procureur voilà donc kooku ñu jàpp sama nit la bàyyi ko mu dem maanaam boobu genre relation la dooro gay am ak procureur bi bàyyi leen ko xel procureur bi woo dooro gay fi may wax ak yéen nii ñu ngi gaawantu ci li mu gën a gaaw pour am médiation diggante Doro gay ak ki ko porter plainte pour jël cinq cent millions jox ko kooku après Doro Gaye dem xam naa giseeg Macky Sall wala ñoñoom ñu jox ko xaalis mu indiwaat fay la nga xam ne moom moo des ci mbiru bor bi ñuy wax bor bi nag dafa wundu li ko wundu déglu leen ma déglu leen encore lu baax a baax li indi li nga xam ne moom mooy mbirum suuf si ñu toppee Doro Gaye mooy nervi problème mu nervi yi ak rey nit ñi nga xam ne ak ñaawteef yi nga xam ne moom la ñu doon def ci réew ma. amoon na fi ay temps bu fekkee nag may bàyyi xel maa ngi leen doon wax ba leen di wax ay waxu Amadou Sall ak ay suuf yu ñuy jël ak financé ci li nga xam ne moom mooy nervi yi donc lii alalu financement nervi yi la ba léegi rek. li nga xam ne moom moo daan financé li ñuy rey moom moo daan financé li ñuy toroxal moom moo daan financé jiiñ Ousmane Sonko moom moo daan financé li nga xam ne di fexe nañu ba Ousmane Sonko bokkul ci ay élection loolu yëpp dafa bokk ci ay financement ak ay liggéeyu Doro Gaye donc bàyyi loolu loolu loo xel c'est une personne très dangereuse et très connectée au Sénégal bàyyi leen loolu xel sénégalais nag ñun dañuy dox ci ay sentiment da ngay jékki-jékki man nee naa leen réew mi du réewu sentiment Ousmane Tounkara sax bu defee lu dul yoon teg leen ko ci yoon rek bàyyi leen sentiment mënuloo on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs maanaam nee nañu kenn mënta defar omelette te tojul ay nen loolu c'est normal et parfois nen yooyu mën naa doon yow mais dama ne concentré wu leen ci mbirum Doro gay bii bu baax xool leen procureur bii fa nekk c'est le même procureur qui accusait ces jeunes ñu def leen mandat dépôt ñu ubbi leen ay dossier euh, comme niñ ko tuddee ay dossier d'enquête bàyyi leen ci biir kaso yi un an kenn du leen atte baa jaxate ñaata dossier la fekk ci kaw table procureur ñaata dossier sénégalais ñoo nekk ci kaw table procureur ba jaxate mooy sénégalais bi gën a important ki nga xam ne dañ ko fay dix million déglu leen Bah Diakhaté dégg ngeen ñu ne leen bi ñu demee ci compte Wave am dañu gis dix million yoo xam ne Mamadou Gueye ak ñu tudd euh, ka nga xam ne moom moo ministre ba waaja yoroon euh, mbirum euh, sécurité maanaam kii yooyu Biram Biram Biram Diop ak ñeneen ñu ne leen ñooñu ñoo ko yónnee dix millions yi léegi dama leen di naka nga mën a attee kii saaga doo atte ka nga xam ne moo ko fay muy saaga loolu du mën a nekk nan nga mën a atte kii nga xam ne yow moom mooy saaga moom mooy def tojaange yi waaye ka nga xam ne moo ko jox xaalis bi pour mu def tojaange yi nga ne doo ko atte Bah Diakhaté est un mercenaire Bah Diakhaté mercenaire la bu may dégg déjà ñuy tudd turu activiste daf may metti sama biir xol parce que je pense que vous ne savez pas ce que activiste li mu signifie Bah Diakhaté mercenaire la dooro Gaye est un danger public dooro gay ki ko jàpp nii dafa parax paraxe mu jàpp ko balaa ñu koy changer dossier bi di daanu ci loxo procureur bu sérieux loolu moo tax procureur bi jël dossier bi procureur bii dina fexe gaawantu dossier dooro Gaye bi jéem indi médiation jéem a indi dooro gay dugal xaalis ñu bàyyi ko mu dem mbirum suufu Sénégal procureur bi ci boppam daf ci bokk tappale suuf yi nekk senegal Sénégal doyen des juges Maham Diallo daf ci bokk maanaam Macky Sall bu daan jëflanteeg yow dalay tase Macky Sall du nit koo xam ne dafa daan jëflanteeg yow rek bàyyi la nga set daf lay jox loo xam ne ëllëg ak si biir day am preuve maanaam dalay piéger makki Sall procureur am yëpp daf leen piéger juge yi yëpp daf leen piéger pour ñu continuer ko defal sale boulot déglu leen ma ma wax leen encore une fois Macky Sall juge yi mu fi bàyyi yëpp daf leen xoj procureur yi fi bàyyi yëpp daf leen xoj parce que ëllëg ak si bu leen ne hee yow defal defo comme ça mu génnee dossier yi nga xam ne moo la moo la gàllankoor yow moo la jàpp donc bàyyi leen loolu xel Macky Sall suuf su bari la joxe ci Sénégal les complices doivent être arrêtés ce procureur c'est un bandit xeebu bu man ñi ñu fi teg ndax xam naa leen ay liggéeykat lañu ndax ñun xam nañ Seydina Ousmane mu sell te xam nañu kuy Bassirou Diomaye fay ku xam président Bassirou Diomaye ñun xam nañ ko dama ne fexe leen lépp looleen man procureur bi bu mu bàyyi Bah Diakhaté bu mu bàyyi Doro Gaye ci lu gën gaaw yéen ngeen indi yeneen nit yeneen nit lu mu gën a gaaw dama ne magistrat Sénégal yëpp jubadiwuñu de ndax gis ngeen fii ñoom saaba si gis nañ fi yeneen nit xam nañu magistrat Sénégal yi baax mais Sénégal magistrature bii kañu teg géejawaay kan la nee naa leen kooku mbokk la ci famille bi ma bi may bi may sëy ami ndaw du moom la ñu def euh, euh, kii géejawaay moom mooy doyen damane ne moom mooy président grand grande instance tribunal bu Guédiawaye dafa kooku xam ngeen kan la ñooñu ñoo ñoo ñoo daan ñoo teg Ousmane Sonko ay daan Macky Sall juge mi procureur mi yëpp daf leen corrompre ñoom ñëpp seen loxo dafa takk te comme seen loxo dafa takk dafa am fu leen jàpp mbirum suuf procureur de la république bii danañ ko épingler ci mbirum suuf procureur Bassirou Gueye ma fi newoon dégg ngeen mbirum suufam ñoom ñëpp dañu yor ay immeuble yor ay suuf yu dul jeex di la de mbirum Doro Gaye bii boo leen ko seetaanee ci loxo procureur bii ak mbirum Bah Diakhaté bii ak mbirum waa APR yi ñoom ñëpp dina leen libérer ñoom ñëpp dina leen raxas ba ñu set mu delloowaat leen ci société bi donc dama ne delloo siwaat leen seen xel te bu ñu demee ay sentiment donte ñun nag comme ni ko gars yi di waxee on ne plus dans l'opposition on est au pouvoir waaye ñi nga xam ne dañ leen jiital dañ leen di yee pour ñu xam ne ay bandi lañ ko seqal donte ñoom xam nañ ci lu bari. ndax Ousmane Sonko c'est la personne la plus informée du Sénégal le président Bassirou Diomaye Faye c'est l'homme le plus informé du Sénégal waaye du tee ñun ñii nga xam ne dañu am kaddu ci dëkk bi ñu indil leen information yi ngeen xam ko yéen a ngi démb dégg démb ba tey waaw ba jaxate indi nañ ko atte nañ ko flagrant délit ah d'accord flagrant délit ba jaxate flagrant délit rek ok c'est bien flagrant délit mais ana ña nga xam ne ñoom ñoo ko yónnee dix millions yi ñu dara du leen ci fekk ñu yónnee nit dix millions ba jaxate tey bu doon rey nit mooy liggéeyam mu dem rey nit ci dix millions yooyu looy def tu vas faire quoi tu vas dire que ah ñi koy yónni amul problème ki def rek moo am problème ki yónni ba jaxate kooku dara waru koo top dara waru ko cee fekk déedéet kenn bu mu topp ba jaxate ci ñi ko yónni déedéet nañu top rek ba jaxate c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi man nee naa leen procureur nekkul di doxal yoon dafay fen day tappale procureur day tappale dama ne procureur dafay tàppale boo leen gisee ma teel a génn nii c'est parce que comme ñu ngi ci ay réforme justice j'espère bien que dinañu dégg vidéo bii te ministre de la justice mu gaaw jël ay dogal ci daq bandi bii nga xam ne moo nekk procureur de la république kii c'est pas un procureur ah ces gens-là c'est des délinquants à la tête de notre état ñu ay nit duñu ay nit ah ñii fane nii ñii procureur yi ak juge yi ay bandi lañu donc nañu bàyyi loolu xel que les sénégalais le savent ay bandi lañu ah cette affaire de Doro Gaye ay bandi il faut nit ñi xam loolu il faut nit ñi xam ne c'est pas acceptable parce que buñ fi toogee di noppi di seetaan ba mbir mi jeggi dayoo ce sera trop tard pour nous loolu mooy dëgg ba léegi. procureur APR yi ñoo fi ne ak juge APR yi ñu ngi indi waa APR yi nga xam ne xam nañu ne c'est des dangers publics xam nañu ne yoon bu dalee seen kaw dina metti lool ñu bëgg a parax paraxee affaire yi. voilà donc bàyyi leen nañu bàyyi show la lii ay show ay caaxaan la ay tappale bàyyi leen sentiment mu ñu waxee démb bind naa ci page bi ñu ne voilà lu tax ñun ñoo bëgg justice donc nañu bàyyi justice def liggéeyam ban justice du justice bi balaa ngay teg justice balaa justice di mën a def liggéeyam da ngay teg justice mais ça c'est pas une justice ça c'est la justice corrompue de Macky Sall loolu moo fi nekk justice bi fi newoon bi fi Macky Sall nekkee ñoom ñoo fi nekk voilà donc il faut ñu bàyyi loolu xel mënuñu nag ak fal ay nit bàyyi leen ci ay loxo ay bandi ñu leen di saax-saaxe parce que tey ko gis ñu ne ah vraiment manqué respect ko kooku dossier bi mu ubbi contre Ousmane Sonko mais loolu amul ci suñu code pénal amul fenn ci code pénal fu ñu ne euh, indi nañu loi boo xam ne c'est contre saaga président de la république mais amul benn loi boo xam ne indi nañ ko boo xam ne

waxuma la ay di waxu tappale mais justice bu amul ci réew réew mi du dox il faut ngeen bàyyi loolu xel justice bu amul ci réew réew mi du dox band yii fi ne ñii duñu doxal ab réew usmaan Sonko ak Bassirou Diomaye Faye suñu président yu baax yooyu ñun xam nañu ne lu bari dinañ ko changer mais ñun population bi aussi nañu éveillé wu bàyyi leen lu xew rek ngeen bëgg a ay bandi déedéet démb ba léegi maa ngi gis ay nit waaw procureur bi nangam procureur bi gëmul dara il ne croit en rien corruption corrupteur bi gën a le plus grand corrompu du Sénégal sa ce procureur mënuloo démb ton plus grand corrompu nga indi ko tey nga ñuy wax ay waxu wala il est wala nit la non non non non non déedéet déedéet procureur bi ñëwul pour servir kenn pour exemple dafa nekk di teg ay dilam di teg ay yëfu dof-dof loom mais xoolal ñi mu woo le plus grand insulteur de l'APR Bah Diakhaté dafa daan protéger procureur bi yéen fàtte ngeen ne procureur bi bu daan def ñaawteef bu daan jàpp suñu jeunes yi muy jàpp ñoom Ousmane Sonko ak keneen lan moo doon xew lan moo doon xew c'est ce même procureur là Bah Diakhaté dafa daan génn di ko protéger Bah Diakhaté dafa daan génn di protéger procureur bi di dëggal jàpp yi mu daan jàpp jeunes yi di dëggal jàpp bi mu jàpp Ousmane Sonko di dëggal jàpp bi mu jàpp ñoom Diomaye di dëggal jàpp yi mu jàpp ñëpp ba jaxate daf ko daan def ngeen defe ne procureur bi dafa mere ba jaxate kii merewul ba jaxate de daf leen di manipuler c'est un manipulateur ce procureur est un danger public il doit être radié de ses fonctions immédiatement dañ ko war a jëlee fii kii du kii du procureur de band bii fi ne bandi yii fi ne ñii ñëwuñu pour doxal loi donc bàyyi leen loolu xel il faut il faut ngeen comprendre ne nu on sera toujours à vos côtés comprendre leen ne dara duñu fi jëlee dara duñu fi jëlee ñun montagne la ñu wax naa leen ko nee leen nous on est des montagnes dans ce combat on ne quittera jamais ce combat déedéet des bandits masqués des bandits cagoulés encagoulés sont la à jouer avec nos nos nos cerveaux Gaye Macky Sall la fi nekkaloon ak Marème Faye Sall ñooñu la fi nekkaloon rey nit jàppalu nit ñi monter ay dossier monter ay ku def sale boulot PDG wu lan la dites-moi ku mën a indi loxoom teg nañu Doro Gaydé vraiment c'est un PDG de ceci et cela ñëw leen ma wax ma ko ndax man mii ngeen di waxal quatre-vingt-dix pour cent de ce que vous connaissez de Doro ma leen koo gën a xam ndax Doro Gaye waa Kaolack la Kaolack la dëkk du falaa mën yem nag te ñu bari ci yem xam ngeen ne man Kaolack laa wutee soxna ngeen jéggal ma xam naa ne message yi may def dina am ñoo xam ne sax ndeysaan du leen neex mais man comme ci dëgg lay dox ci dëgg rek lay dox te dëgg boobu mooy Doro Gaye c'est un détourneur de milliards lii moo gën a ndaw ci li lii toq ci biir géej gi un milliard deux cent yi toq la ci biir géej Il n'a pas de travail, amul boulot. Son, tout son boulot, c'était de manipuler et travailler avec ce gouvernement et faire les sales boulots. yow doo employé gouvernement. Doro il n'est pas ministre. xanaa man ngeen ko d'accord Doro Gaye ban fonction gouvernement la yor yéen ñëpp kat moo ma mën a wax ne procureur la wala policier la wala lii la wala lale Doro Gaye amul benn métier ci gouvernement Sénégal. kooku naka lay waxee ñu jàpp ko ay enquêteur laaj ko mu ne Macky Sall moo ma joxoon terrain yi. pour ma jaay ko pour secret d'état <laughs> eh, écoutez ah Doro Gaye nee na Macky Sall moo ko jox terrain yi ci enquêteurs yi li ñu wax pour mu jaay ko pour mu def ci loo xam ne secret d'état la ban secret d'état pour ñu rey nit ñi pour ñu rey boy yi pour ñu jàpp ni ñi voilà pour l'achat des armes et, et, le financement des nervis waxoon naa leen ko fi ne woon naa leen am na waaju nekkoon impôt et domaine plus particulièrement ba ma tudd fi DG impôt et domaine ne leen ñu ngi jël ay terrain di ko attribuer di ko def ci ay tur di ci defar ay bail di ci def ay titre foncier di gaawantu Amadou salle mi ngi ci doon récolter au taux de cent cinquante millions par jour cent cinquante millions de francs CFA par jour la doon la doon récolter donc gars yi bu leen nelaw li américains yi di wax don't let your guards down maanaam ne laissez pas ne baissez pas les armes concentrez-vous sur l'essentiel l'essentiel nag laa leen wax voilà Doro bu buñ ko bàyyee tey dinañ ko mi ngi médiation de dinañu gaawantu léegi parce que procureur bi charitable la benn bakkan kan mooy patron section des recherches c'est le procureur de la République c'est le patron de la section des recherches patron section des recherches c'est le procureur de la république boo leen bëggee xam relation wu Doro Gaye ak procureur dem leen déglu Kalifone Sall Kalifone Sall biñ ko jàppee kan moo ko génnee prison c'est ce même Doro Gaye qui a beaucoup travaillé ba Kalifone Sall trente jours la def prison génn ce même Doro Gaye a va travailler ba jaxate mii maa leen wax Doro Gaye loxoom a ngi ci ak ñeneen parce que seen saagakat la c'est leur insulteur lan moo war a tax doomu aadama nii rek ñuy jël dix million di la ko yónnee Doro Gaye a miné ses réseaux il a beaucoup de contacts dans ses réseaux réseaux sociaux yi door Gaye daf ci am connexion bu dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër dëgër il a beaucoup financé son argent dans ses réseaux di ngeen gis ay nit yu koy défendre toog leen rek di ngeen gis fi ay nit waa door Gaye lii Doro Gaye lii bu leen ko jàpp Doro Gaye ku baax la vraiment Doro Gaye Doro Gaye vous allez voir vous allez voir il a investi des milliards Doro Gaye pour quelqu'un qui n'a pas de boulot Doro Gaye amul liggéey Doro Gaye c'est pas un PDG un PDG de quoi voilà mu ne kii pour m'expliquer fu un milliard bi jógee da ko joxe te chèque bi baaxul wala dafay fay mais attendez wala am na koy bind gis nga Doro Gaye un milliard deux cent bi dañ ko jàpp rek pour régler dossier am très rapidement pour génne ko dafay man je ne serais pas surpris si on m'a dit que Doro Gaye est chez lui ce soir voilà duma leen man moi je ne serais pas surpris si on appelle ce soir on dit que voilà Doro Gaye sorti génn na voilà dem na këram il a il a réglé les problèmes voilà il est chez lui déglu leen ah après ngeen ñëwaat nat vidéo bi